bon moi je dirais pas soulagement mais par contre aussi li mu wax dëgg la cest à teel a dugg ci compétition bi dafa baax soo seetloo bi ñuy coupe di coupe d'Afrique bi passé avant ñuy dem euh, dañ jàppoon ne suñ coup poule bi dañuy ñëw si c'est vrai que euh, au départ on n'avait pas nos meilleurs hommes et tout avec Covid bi ak yenn joueurs yi nga xamante ils étaient euh, forfaits et tout euh, mënuñ woon démarrer compétition bi si je peux si soo xoolee Sénégal dafa am difficulté pour pour pour génn parce que peut-être mun naa ne dañu xaw a sous-estimer adversaire yi wala dañu waxoon ne su ñëwee dañuy jàll seen kaw. Mm-hmm. peut-être ça n'a pas été donc li mu wax c'est vrai parce que déjà présent je sais que mentalement euh, joueurs yi ñu ci bëri ñu ngi dugg ci compétition bi daa sànq maa ngi déglu Kalidou Koulibaly il disait que on va balayer on va on va essayer de combattre équipe bu taxaw sunu sunu kanam dañ koy jéem a dañ koy jéem a combattre donc je pense que déjà nga am ay adversaires yoo xamante ni nii c'est des adversaires de taille devant dans le bain dans le alors que si c'est pas le cas peut-être toujours soo seetloo match Sénégal yi toujours c'est par rapport à l'adversaire le Sénégal joue mhm. je sais pas si yéen a bàyyi xel. si si dernièrement contre Brésil. Mhm. yéen gis niveau de jeu bi Sénégal indi. Mhm. alors que peut-être su fekkee dafa tase ak de petits poussés souvent il est en difficulté wala il cherche à se je sais pas surpasser wala day day day sonn yéen a ngi fàttaliku Eswatini je ah. pense Eswatini la. Mhm. bu ñu ñëwee fii bëgguñu créer bëgguñu fi dóor. Ah, mhm. donc soo xoolee tirage yi dans la dans sa globalité moi je dirais que on pouvait pas s'attendre à, à à un groupe facile parce que déjà ak configuration. po yi Sénégal po bi mu nekkoon. il po po bi po deuxième po bi. Mhm. nga euh, chapeau bi excusez nga xamoon ne y avait Cameroun Nigéria et forcément Mali di nga dal ci benn benn benn équipe bu mag mm-hmm. maintenant euh, si on essaie de revenir euh, si sunu poule bi euh, c'est vrai que c'est de gros morceaux c'est de grosses c'est de grosses équipes mais ay équipe la yoo xamante ne nii peut-être xaw nañ xamante tuuti soo xoolee suñ si on revient un peu sur les statistiques et mm-hmm. Sénégal peut-être euh, a une a, a une petite ascendance ay Guinée nga xamante ne lii c'est vrai que kan bi kan moom moo ñu moom moo ñu sonal. a fallu match bi bi mu jeexee bi ñu defee match nul ñun ñi nekkoon je sais pas si mais ñi fa nekkoon ñëpp dañu kontaan dañu jubilé ci ci pet parce que match boobu pare mënoon nañ ko ñàkk. si mënoon nañ ko ñàkk. avec un bon séninier. avec un bon séninier match boobu mënoon nañ ko ñàkk. maintenant je disais c'est des équipes yoo xam ne xam nañ ko c'est dans la sous-région toujours derby la day métti. Mhm. Gambie. je sais pas si vous en souvenez euh, éliminatoire mondial ak CAN combiné en 2010 1-1 lañ def ak moom si si dafa métti woon c'était c'était difficile Cameroun la dernière fois bu ko Sénégal gagné il y a 33 ans c'était phase finale Coupe d'Afrique c'était en 2000 euh, en en 90 à Annaba un 6 mars quelque chose comme ça donc gis nga 33 ans ci lañ mujjee gagné Cameroun phase finale Coupe Coupe d'Afrique entre temps muy gagné ñu deux mille. deux mille ak je pense mhm. en finale. ak ah, deux mille deux finale. en en voilà donc cela veut dire que. c'est des adversaires yoo xamante ni xamante xamante ngeen. effectivement vous connaissez seul seul seul Gambie nga mus a nga fubalagul en phase finale de CAN sinon ñi ci des ñëpp jot ngeen fubal phase finale de CAN. maintenant euh, Sénégal su fekkee dafa war a prétendre gagner coupe. conservé -hmm. conserver mhm. vraiment. Euh, waru toog fii di xalaat. di xalaat ay Gambie. wala non je sous-estime sous-estime kenn. mais waru fi nekk di xalaat ay Gambie. non Sadio Lô Sadio nee na amatul benn équipe boo. xamante ne jouer les matchs à fond voilà c'est ça. soo gisee poulu poulu poulu poul A bi mais attends euh, Nigéria y a Nigéria là-bas y a y a les pays hôtes y a la Guinée équatoriale te Guinée équatoriale je sais pas si vous en souvenez. à la Côte d'Ivoire sunu quart de finale ak moom c'était pas du tout évident donc poul yëpp a métti maintenant. compétition la il faut y aller avec ses armes. D'accord. je pense que le Sénégal a le groupe qu'il faut vraiment pour euh, pour pouvoir se qualifier.